salaamaaleykum mbokk internet yi daleen ak jaam ci Sen Sport 221 dañu koy doore ak wàccaay match bi nga xam ne Sénégal war na ko amal ci bés ñaari jogante sax mu aju ci lii di éliminatoire CAN 2025 Sénégal war ci jënoog Burkina Faso ak ñii di waa Burundi gaynde yi nag tey noonu ñi daal di tàmbali li nga xam ne mooy loolu di regroupement yi ngir waajal match yooyu la ki nga xam ne mooy Krépin Diatta tey jii daal dina jënoog taskatu xibaar yi gannaaw bi mu amalee li nga xam ne mooy ab retouram xam nga moom bu ngeen bàyyi xel daanaka depuis kan bu ba léegi gisuñu ko ci équipe nationale bu Sénégal bi ndax dañu ko tegoon daan ci ay jogante yoo xam ne di maam dañ ko ko ajoon ba mu ca jógee waroon a teew ci match yi weesu waaye nag li nga xam ne moo xewoon mooy voilà soxnaam dafa amoon xale taxoon teewul ci mbir yi am na it ay jogante yoo xamante ni ay blessure bokk na ci li ko gàllankoor loolu yëpp tey ji dal na ci addu moom kooku di Krépin Diatta mu nga xam ne daal équipe nationale bu Sénégal moom woon na ko loolu ndax ñëpp xam nañu fi ko équipe nationale bu Sénégal toll moo tax ñàkk teew ci jogante yi nekkoon na loo xam ne manqué na ko trop maanaam li nga xam ne defoon na ko nag ba tax ñu dal di koy teg li nga xam ne mooy sanction yooyu lee mu ne lu nu mel moom dootu ko daal mukk njumte la te ku nekk nag da ngay juum waaye nee na daal lu nu mel bu amati rek dañuy gis ne day dégg nga maam njumte bu rëy lay doon moo tax lool dina fexe ba lu nu mel dootu amati ñu koy teg ay daan ba war ko xeeñ li nga xam ne mooy ak teewam ci li nga xam ne mooy équipe nationale bu Sénégal lu nu na dina xeex ba lu nu mel amati waaye nag li nga xam ne mooy équipe moom manqué woon na ko lool wax na it ci ki mooy coach yees bi di Pape Thiaw bi jamono bi mooy jiite équipe bi wala mu dal di ko fi fekk di xam ne ne kat moom Pape Thiaw mile mérité na ngir nekk ci li nga xam ne mooy bopp équipe nationale bu Sénégal ndax coach la boo xam ne day ko am xarañte la te nag moom yàgg na ko xam ndax ne na avant ñuy dem ci li nga xam ne mooy CAN bi weesu ak pendant li nga xam ne mooy CAN bi sax nekkoon na di leen dimbale doon na leen dimbale ci lu bari xam nga jamono yoo sax bu ngeen di bàyyi xel Pape Thiaw moom bokkul gul woon ci li nga xam ne mooy stafu na doon na leen jàppale lu bari kon moo tax nee na daal ci li nga xam ne mooy équipe nationale bi rawatina mu daal di nekk ci bopp équipe bi mooy loolu nekk na loo xam ne mérite ndax Pape Thiaw ku ama am xarañte la loolu itam daal dina koy addu tey jile mu nekk ndaje moo xam ne nag amaana mu nekk sax ndaje mu mujj seen diggante kii di Pape Thiaw ndax ñaari match yi moo des ci li nga xam ne mooy éliminatoire yi buñ co jegee voilà déwén la ñuy footballaat mois de mars 2025 ci la ñuy footballaat waaye li nga xam ne mooy aju ci lii di CAN bi moom dañ koy woon ginnaaw maanaam lii di éliminatoire yi bokk léegi nag fileeg boobu xëy na Sénégal daal di am li nga xam ne mooy beneen coach bu fekkente ne tànn ñu kii di Pape Thiaw moo tax ndaje mi la day mën na nekk tàggatoo voilà loolu it lu mën nekk la waaye ki nga xam ne daal mooy Krépin Diatta apprécié na bu baax a baax ki nga xam ne mooy Pape Thiaw rawatina ak ne mooy bopp équipe nationale bu Sénégal waaye ndaje mi nag tey tàmbali gi ñu ko tàmbali muy regroupement yi ak yu njëkk yi am na ci loo xam ne nag du xibaar bu neex ndax am na ci li nga xamante ne mooy ay forfait gis nañu ñaari joueurs yoo xam ne duñu teew ci jogante yi kenn ki mooy Ismaël Jacob Seck bi nga xam ne kat moom ni ki démb la amal ab retouram gannaaw bi nga xamee ne dafa amoon blessure ay semaine semaine mu tëdd ko di ko faju di dimanche bii lay football match bu njëkk waaye waxoon na leen démb ci ne 45 première minute yi képp la dal di football ñu daal di koy génne ñu amoon ci ñaaw njort waaye la ñu mu mel ni moo mujjee am dafa blessé ki nga xam ne mooy Ismaël Jacobs kon dafa dellu si rek gaañuwaat joué wul sax bu yegg loolu waral na moom dina wuutee li nga xam ne mooy jogante yi la voilà dina dem nag li nga xam ne mooy ay test yooyu ñuy tuddee IRM waaye ànd ak loolu yëpp moom li nga xam ne mooy ab um, forfait moom fi mu ne leer na dootul teew ci jongante gi moom Ismail Jacobs loolu kii di xibaar daal nañu koy xamle ñii di fédération bi ak clubam boobu di Galatasaray am na ñu déggoo ci mbir moomule voilà loolu nekk loo xamante ni kon ñoom nangu nañu ko Ismail Jacobs du teew ci jongante yi du moom képp waaye ki nga xam ne te moom la ñu wax Seydou Sano moom it daa forfait du bokk ci jongante yi voilà moom gone gi nekk ca Qatar kayiti xibaar baa ñooy xamal ne que dafa am moom it ab gaañu gaañu boo xam ne day dina ko jël ay semaines yoo xam ne da koy faju moo tax moom it ak teewam ci jongante nekk na loo xam ne du jàppandi ki nga xamante ne nag mooy Pape Thiaw du woo keneen kuy wuutu ko nga xam ne mooy Seydou Sano buñ sukkandikoo taskatu xibaar yi ndax ki nga xam ne mooy Kalidou Koulibaly Abdou Diallo Moussa Niakhaté ba ci Abdoulaye Seck ñoo ngi fi moo tax indiwul renfort ndax bu ngeen bàyyi xel lu ci ñaar fukki jours ak juróom-ñett la woowoon kon bu ci ñaar manqué jàpp nañ ne war na dese li nga xam ne mooy 26 ci ay jours kon mbirum ki nga xam ne mooy Seydou Sano duñu ko wuutal keneen waaye ki nga xam ne nag dégg nga mooy Ismail Jacobs xëy na ñu ngi xaar ki nga xam ne voilà mooy gone googu nga xam ne moo ko fi wutoon ci bés yi weesu muy El Hadji Malick Diouf bi nga xam ne gone goo am xarañte la voilà kon moom amaana mooy joué ci poste boobu nga xam ne dégg nga maam kii di Ismail Jacobs na fa gi njëkk nag ñu ngi ko war a amal ci bés yi maanaam alxames bi la ñu war a football match bu njëkk la 14 lay doon voilà beneen ba nag le maanaam bu ñu jógee ci li nga xam ne mooy élection yi ndax bés boobu ci la Sénégal waroon football waaye nag xam ngeen jogante ko dañ ko pousse ñaari bés gannaaw li nga xam ne mooy élection yi a nekk le 19 novembre booboo lu moy lolu Chelsea football club nak sen goné gi nga xamné mom lañu wax dégg mam kernan desbury Hall nee nañu daal fi di mo ngi yoru joggé fofu la ndax mom kat amul contenté trop ci li nga xamné moy ak nekkam ci équipe bobu mom dañ ko jëndé tay ca Leicester City gi nga xamné dañu xex ba monté ci English Premier League bi Chelsea dal di ko fay jëndé indi ko di tek ci banc bi limi jé bari wul wala kontaanul dal mo tax fi ni dal amna club yo xamné ñing ko yitté wo bokk na ci équipe bu melni Aston Villa dañ ko bëgg te nag jamono bi mom nee nañu ubbé ko na pour dem ci rawatina janvier bi nga xamne yexina ba nopi voilà moom ko xamne mom ne wax Dewsbury Hall bu fekkente ne kon Chelsea la xasuñ ci jandal dal voilà moom dina dal di dem ndax fi ni kat amul contenté ci li nga xam ne mooy temps de jeu bi nga xam ne jamono bi am na ko ak équipe boobule ki nga xam ne nag mooy Lamine Yamal ak kooku nga xam ne mooy Lewandowski ñoom itam dañoo dal di am blessure yoo xamante ni waral na ba du teew ci seen dëkk voilà Lamine Yamal moom dafa am gaañu gaañu bi nga xamante moo waral bu match weesu Barça football ko dëkk démb bokkul ci woon waaye nag ñu gis ne moom dafa war a toog lu toll ci ñetti semaines yoo xam jugé ak ñom danañu kooku di Lamine Yamal dina ko dal di wuute ak yeneen jongante yo xamne Barça war nañu ko am bokku na ci seen diggante ak Celta de Vigo da nak Lamine Yamal xam ngeen ne élément la bo xamne day Barça mu manké len arrangé wu len ndax ñaari match yi nga xamne ñak gum nañ ko ci La Liga ci saison ran bilé moy ñaari match yi nga xamne koku Lamine Yamal titulairul xam nga match bi Barça jëk dégg maam ñak seen diggante ak Osasuna Lamine Yamal blessé wu won way keroog dañ ko don noppal wala mu dal di dugg sax ci second mi-temps way taxul Barça dellu ci ndax dañ leen dooron ñent bal ci ñaar benen bi nak moy dembu xam ngeen footballul ñu dal di koy door encore kon mu mel ni joueur la boo xam ne day voilà ñàkk a bokk ci li nga xam ne mooy équipe boobu yemul ak mu ne fa keneen ki mooy Lewandowski wax nañ leen moom it dafa am gaañu gaañu waaye kayit xibaar bi li mu xamal mooy moom fukki fan képp lay toog di ko faju loolu nekk loo xam ne xëy na moo gën a dal xel tuuti ndax bu ñu jógee ci li nga xam ne mooy trêve international bi lée amaana match yi ci njëkk kii di Lewandowski mën na ci bokk nekk nekk loo xam ne ni xibaar nga xam ne doon nañu ko am ci liga seen digganteeg équipe boobu di Real Sociedad forfait yi nag tey ji dañoo takk Angleterre moom tey ji lu toll juróom-ñett ci ay joueurs ñoo forfait te waroon teew ci seen jogante juróom-ñetti joueurs loolu moom nekk loo xam ne takku waaye nag indi nañu ñeneen ñoo football club moom du bokk ci joŋante yi Bukayo Saka naka noonu kii de Trent Alexander Arnold dafa forfait moom itam voilà ki nga xam ne moom la ñu wax Phil Foden daa forfait Levy Colwill moom it Chelsea football club dafa farfe Jack Grealish bu Man City ak ki nga xam ne mooy Aaron Ramsdale bi nga xam ne ancien joueur Arsenal la nekk ca Southampton gardien la ki nga ne mooy Declan Rice moom it forfait na juróom-ñett ñëpp dañuy wuute li nga xam ne mooy jogante googu ñi di waa Angleterre war a amal ci Chile voilà loolu nekk loo xamante ni nag doy na waar lool waaye nag ci kaw loolu am nañu gone yoo xam ne woo leen bokk na ci ki nga xam ne moom la ñuy wax Morgan Rogers ak kii di Jarrod Bowen Jarrod Bowen moom mooy capitaine uh, West Ham United gona go am xarañte la ak kii Brand White nek foofu la ci Everton défenseur ki nga xamantene mom lañ wax Tino levramento momit won nañ ko ak kii ñu wax James Trafford ñi moy gona yi nga xane won nañu len wala ni ay renfort ñu wara tew ci lolu di équipe nationale bu Angleterre. ki nga xamne nak moy Trent Alexander Arnold mom kayti xibaar bi mu ñuy xamal ne kat moom gañu gañu bi nga xamne amna ko dina ko jël li nga xamne moy ab diir boo xam ne du football ak équipe bobu di Liverpool. ndax ñaar jàpp ñetti semaine la ñuy ma loolu nekk loo xam ne kat dégg nga maam xaw na yàgg ñaar ba ñetti semaine moom gone googu di Alexandre Arnold tane nañu sax di teel a génn gi mu teel a génn ci match bi looloo ko dimbali voilà looloo waral ba gaañu gaañu na mu waroon gravé gravé ko waaye bu dul woon loolu mën a tëdd sax weeru yàlla boo xam ne di ko football waaye ñaar jàpp ñetti semaine moo koy xaar moom kooku di Alexander Arnold Manchester United seen coach bu yes bi teew na mooy ki nga xam ne moom la ñuy wax Ruben Amorim tey ji la nekk loo xam ne moom kon dafay tàmbale lii di ab liggéeyam ndax ki nga xam ne moo ko fa wuutu woon muy kii di Ruud van Nistelrooy moom jamono bi tàggoo ak ñoom Manchester United daal nañu def ab communiqué tey ji dal di koy gërëm sant ko ci liggéey bu rëy bi nga xam ne def na ko fa ndax moo bot équipe voilà dal di cee jël li nga xam ne mooy poñ yu takkoo takku ñeent match mu joué ko gagné ñetti am benn match nul ñàkku ci benn mu nekk loo xam ne ñu ngi koy gërëmee di ko ko santé di wax ne moom légende pure la joueur la xam na ci ñi nga xam ne ne mooy liggéeyam daf fay nag du fa teew ngir bokk ki nga xam ne mooy Amorim lii di banc bi voilà waaye gërëm nañ ko sant ko xam ne kat li nga xam ne mooy équipe boobu di United ak Old Trafford la voilà anytime mën na si waat foofu la ndax kat nekk na koo xam ne jox na léppam équipe boobale moom kooku di nga xam ne mooy Amorim teew na foofu la a bi am ne xam nañu kañ la ñuy fa wuutu woon Carvajal bi nga xam ne moom ab saison jeex na te ko wuutu woon fi mu bu war a weeru yàlla mooy Real Madrid jamono bi amuñu ab latéral de métier amuñu ko lu ko sax xeyna na ab dépanne rek la doon def ndax nekk lo xam ci lañu ko formé waye fimné ni mom dana tok wéru yalla waxam du ko football ndax blessure bi nga xamné amna ko ñu ngi xamné né ne yi dina ko daldi wuté bokko na ci contre Leganés Liverpool Getafe Athletic Club Bilbao ak Girona li yépp ay match yu reey la di yépp dina ko daldi wuté mom moom Lucas Vazquez keneen ko xamné mom itam dina tok juroom japp juroom benn semaine muy ki nga xamné Rodrigo manam dal nañu wér japp wér ak genwal dina ko tok bo xamné du ko football mom Rodrigo bi nga xamné mom di ki barki dem mom itam dafa am gaañu gaañu loolu nekk xibaar bu doy waar pour équipe boobale di Real Madrid. ki nga xam ne nag mooy seen gone gi ñuy wax Federico Valverde moom nga xam ne moo doon dépanne di ci li nga xam ne mooy latéral bi bi Lucas Gagno moom nee nañu jamono bii day ñii di waa Manchester City dañu ko bëgg milieu de bu am xarañte de ku dogu la ku mën a joxe nee nañu daal ki nga xam ne mooy Pep Guardiola ak Man dañu ko yittewoo ngir dégg moom remplacer ko ki nga xam ne moom la wax Rodri Hernandez Rodri bi nga bëgg moom nag clause libératoire am ñu ngi koy xayma ci 830 millions d'euros loolu di wane ne ñii di waa Real Madrid pare wuñu rek ngir bàyyi ko noonu mu dem maam dal di dem ci yomb-yomb 830 millions d'euros ay caaxaan waaye xañ na joueur bi moom dañ ko cee laxas rek waaye nag bu fekkente ne xëy na club bi gis nañu koppar yu daal Sénégal ñu bàyyi ko ma dem Syrie daal bëgg nañu ko loolu mooy xibaar bi moom kooku di Federico Valverde bi nga xam ne joueur bu ama am xarañte moo ngi noonu gars